yee maa ngi gërëm Cheikh Ahmed Saloum Dieng Nasruddin mi ngi gërëm son excellence son excellence l'ambassadeur de la Palestine Seydi Safir Seydi Safir euh, ashkurukum ala hada al-hudur ashkurukum ala hada al-hudur wa hadhihi al-kalimat as-sadiqa al-hadifa wa hadhihi da'awat منذ أقل من أسبوع كنت في مكتبكم وأوضحت لي أنكم فقدتم الأمل لم يبقى إلى الدعاء Ah ndeysaan allah ndeysaan ndeysaan waaw Palestine moom yal na yàlla dooleel leen rek ba delloo leen seen seen mbir ba fa tabaarakallaahu moom mu koy not yàlla notal na ko ci baatu bu ay mino maa ngi nuyu. nee na Ahmed Cheikh Ahmed Saloum nee na mi ngi nuyu. njabootu Cheikh Mourtala bi mi fi teew. ñu ràññee ci. ñu ràññee ci.